salaamaaleykum rahmatullah à tout le monde baado auzu billahi mina sheytaani rajim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen wax ni ñu ngi leen di jëfal di leen euh, ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen waa di wax nag euh, sama modérateur nga xamante ni tamit euh, bëgg nañu woote waa 5D au cas où ngeen bëgg a woote témoigner utiliser leen numéro Firdaws Coaching bu ko defee ngeen daal di woote en direct ci whatsapp bi pour seen ay témoignages donc ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaare di leen jaajëfal di leen waaleykum salaam wa rahmatullah comme ni ngeen ko xamee chaque année après 3 mois yoo xamante ni dañ koy ànd après mois yoo xamante ni ànd nañ ko ak suñu femme Firdawsi daanaka jëflante nañu ci li nga xamante ni mooy wàllu développement personnel accompagné nañ leen ci lépp li nga xamante ni rek moo concerné seen addina ah seen éducation personnelle et ak lépp li nga xamante ni rek moo leen fa indi woon euh, après 3 mois yooyu mën nañ ne 4 mois sax euh, ci ci ci janvier bi yàlla dogal na ñu daal di pare lépp li nga xamante ni rek mooy formation bi ñu sante ko yàlla bu baax a baax a baax di alhamdulilahi rabbil alamin ndax yombul woon waaye yàlla suñu borom kàttanal nañu dooleel nañu ba nga xamante ni tey jii ñuy wax ak yéen euh, def nañu li nga xam ne tey mooy 4 mois de cérémonie de collecture 4 euh, mois de formation du moins et que 4 yooyu yàlla dogal na ñu jàng ci lu bëri yàlla dogal na aussi ñu def euh, parcours bu macha allah kon duñu def lu dul jaajëfal femmes yi képp ki nga xamante ne rek bokkoon na 5D képp ki nga xamante ne rek ñëwoon na cinq d ngir améliorer dundam ngir defar dundam ngir defar digganteem ak boromam ngir euh, faju aussi ci lépp li nga xamante ni tey moo jëm ci wàllu psychologie wàllu émotionnel comportemental et kon mbokk yi tappate leen live bi ngeen partagé ko bu baax a baax a baax na partagé am jom donc statut leen ko partagé leen ko parce que dinañu tax dina tax bu ko defee ñu daal di mën a inciter aussi ñeneen ñi nga xamante ne tey ñu ngi dund ay jafe ay difficulté que ça soit wala familial wala muy sa digganteeg sa borom kër wala sa digganteeg sa njaboot dina la permettre nga mën a xam ni yàlla suñu borom bépp feebar bu mu wàccee rek indi la ko saafaraam kon ci loolu ci lañ leen di wax ngeen daal di partager live bi ngeen toog jàkkaarloog ñun bu leen bouger maitre ñu xaar suñu Fane Firdawsi incha allah ñu ñëw rek daal di euh, daal di bokk ak ñun lépp li nga xam ne tey mooy live bi ngir partager leen seen expérience yi ñu am durant ces mois li nga xam ne tey jëlee nañ ko fa xam naa ne lépp duñ ko mën a wax mais au moins dinañ mën a jox leen juste li nga xam ne rek mooy globalité de la situation pour ngeen mën a am aperçu ci li nga xamante ni tey moo xew. di jéggul nag ci retard bi waaw ah, xawoon am lu ñu tànc tuuti rek ndax ñu ngi annoncé woon 6 heures mais daanaka 6 heures demi jot na wala passé na sax di moins donc dañ ciy jéggalu bu baax a baax rek ci leen wax ni sant yàlla bu baax a baax ginnaaw bi ñu yàlla mayee dund may ñu fekke may ñu tal ba tey ñu toog jàkkaarloo waat ak yéen après 4 mois yoo xamante ni ah c'était intense c'était macha allah mën nañ ne pas facile du tout mais teewul yàlla suñu borom may nañu. li nga xamante ni mooy wér ak kàttan ak tal ak fekke ba ñu daal di koy def ci li nga xam mooy dans les règles de l'art kon mbokk yi si leen ñu xaar euh, gars yi def leen seen demande ñi nga xamante ni tey bëgg nañu yéeg Femme Firdawsi tey nag Femme Firdawsi ak ñooy yéeg du ñoom rek lañuy may accès ci li nga xam ne mooy panel bi waaw au cas ñoom ñu bëgg a yéeg euh, merci beaucoup Eviva ñu ngi lay nuyu di la ziyaare di wax merci beaucoup à toi aussi donc en ñu partagé live bi ci statut ñu ngi ñëw. maaleykum salaam wa ñu ngi delloo nuyoo di leen delloo ziar yi ñëpp di leen wax ngeen yegg seen jàmm. <laughs> macha allah. yii ëpp naa xeeb. <laughs> ëpp naa xeeb. ah waa gis nga. ah da ngeen a baax nag euh, dinaa bés du ndaw. bës du tuut borom lay tollool waaw tuuti bu leen nag dafa am cinq dimension la ñu wax ah ñu ngi defaraat ah, <laughs> tagal yi <laughs> en tout cas leen ngeen ngeen takkute nag waa kër yi moom nay jolli waaw lu ngeen kër rek euh, xeeb leen ko lu ngeen kër xeeb leen ko. Mhm. maximum de femmes vraiment. ñu dina ci am solo. voilà mm-hmm. li ñu jàng li ñu li ñu atterrir ak li nga xamante ne. a sax ñu dellu si waat ndax jàng du faj. surtout loolu. développement personnel moom géej la rek géej. Mm-hmm. Euh, boo si amee coach bu mel ne yow mu lay seggal. Mm-hmm. foog naa ne yombalal nga ni daal dimbali nga ñu jàppale nga ñu. ndax ñu si bari dañuy xëy rek tàpp si développement personnel dugg YouTube rek dégg nga te yow mu ànd bu lu jar a wax. surtout. mais dafa ni affiché ci kii bi mais gars yi war nañ ko xam xaaral ma bindal leen ko ci groupe bi ku bëggee a woote mu dugg fii. waaw waa waa waa 5D rek ñooy dugg def seen témoignage waa. en tout cas waa Facebook ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di leen jaajëfal di nuyu waa TikTok yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziare waa di leen wax nag macha allah en tout cas yegg leen waaw bu ko defee ñu daal di mën a. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. <laughs> yegg si la chérie. ah coach sañse nga sañse <laughs> merci beaucoup. <laughs> bi rafet na macha allah. merci merci. d'accord ah, euh, maa ngi nuyu ñëpp macha allah di ziar ñëpp. Mhm. di kontaan lool si cérémonie bis bi cofoon suñu bis bi de. <laughs> ëpp naa def <laughs> ëpp naa cof. Ah, cofoo ko cofoo ko macha allah. waaw mhm. ah, tey moom dama ni moom naa def effort vraiment. Mhm. yéeg témoigne parce que. sama xol dafa sedd daal sama xol dafa sedd te. macha allah mënu ma ko mënu ma ko bañ a def. Mm-hmm. waaw du ma damay am difficulté nag pour wax ni en public wala wax ci mbooloo. mais nekkoo ci public dama sentir. man rek nga jàkkaar lool nekk ma partagé ko. <laughs> nekkoo ci public man rek <laughs> waa kay naa ko jàppee noonu. yow de tàkk jàpp ne ñooy. Mm-hmm. a facile. <laughs> macha allah ñu nekkoon mu nekkoon sama première saison. Mhm. pour la première fois may bokk sax ci lu mel nii. Mhm. ah franchement parce que je suis du genre mhm. habitude di bokk ci ay mbooloo ak affaire yooyu. mais vraiment man la déglu. waaye daan nga jàngi école. Euh, Facebook daan nga jàngi école daan du mbooloo. waaw <laughs> ah, kon baax na. <laughs> c'est la même chose kon. <laughs> école rek la yaa rien normal jël tàkk école la moom macha école la moom ma ni comme classe la daal comme classe comme classe la rek jël tàkk vraiment ma découvrir la sur euh, euh, Facebook mm-hmm. ak YouTube seetaan say vidéo mu intéresse sama trop mm-hmm. surtout côté religieux bi parce que yàgg naa di wut ay information suivre ay coach en développement personnel mhm. mais da ngay gis ni boo ci xuusee tuuti rek après lu ci bëri du la convenir ci sa wàllu diine malheureusement donc mhm. doo mën a continuer da ngay tàng mhm. donc pour une pour une première fois nag ma découvrir koo xam ne lii muy wax méngoo na ak sama diine aw ci benn kii boo xam ne din benn blocage li muy wax yëpp lépp da teg ci diine Mm-hmm. vraiment loolu moo ma gën a poussé après bi ma gisee nga publier formation 5D bi ma ne ah vraiment xaaral. Mm-hmm. parce que nekkoon na koo xamante ne nekk tout le temps en conflit avec moi-même. Mm-hmm. avec les autres jaxasoo au fond de moi bëri bëri bëri ay frustration ay kii yoo xam ne doo ko mën a expliquer sax xëy na. tawatu xol daal. waaw conflit interne waaw. mais macha allah après ci laa dugg ci 5D bi. Euh, dugg ci formation bi macha allah euh, un cadre sécurisé surtout. loolu moom dañ dañ ko soxla lool. parce que cadre boo xamante ne nit ñi dañ ci faju mu nekk euh, milieu bu sécurisé boo xamante ne. dara du yëngu. Hmm. loolu c'est très important. parce que bari na ci ay kii yi nga xam ne dangay jékki-jékki dégg lii fuité na lii fuité na. mais mhm. macha allah 5D nekk un cadre mhm. ku ci nekk tu surtout loolu surtout. Mhm. sa réseau ngi wàcc dafa. nekkoon. waaw je de sécurité bi. nga xamante ni plateforme yi ndaxte ku nekk xam na ne ñoo bokk suñu Sénégal. Mhm. Euh, effectivement ñoo mhm. mhm. euh, tax na jigéen ñu bari dañuy am résistance. ndax foog euh, ngay am comme ni ko Nafisa waxee da ngay am Mm-hmm. dafa dafa wàcc waaw. wala nga am problème mm-hmm. dafa mel ni dama am problème connexion. waaw ñun gisatuñ la sax <laughs> gisatuñ ñu ngi lay dégg mais gisatuñ la c'est bizarre. Mm-hmm. Ah, c'est bizarre. <laughs> waaw xam naa problème connexion la waaw gisatuñ la mais ñu ngi lay dégg quand même. waaw. ah d'accord waaw man finalement déggatuma woon. Euh, may may wax ni en l'espace de quelques mois. coach ju euh, dugal ñu comme comme si daf ñu dugal. oh là sa réseau bi sa réseau bi moo ñuy saboté <laughs> réseau bi ñuy saboté malheureusement waa xanaa ñu xam ne rek comme niñ ko waxee Firdaws coaching moom euh, on est conforme avec la loi ceci dit di ko est protégé par la loi te kuy dugg Firdaws boo duggee ci site bi abonné da ngay jot règlement bi muy PDF boo xam ni yaa ko signé yaa ko lire. au cas où tu fais une chose bu contraire ak li ñu li nga signé foofu tu seras poursuivi par la justice te loolu dañ la ko wax ba mu leer naññ ci biir euh, formation bi donc euh, règle mi règle yi moom da nga ciy soumettre au cas où mënoo ci soumettre ci quitte les liens waaw au cas où def le contraire duñ ci seet <laughs> duñ ci seet dara topp la par euh, en justice jusqu'à ce que ñu xam ni entre lu ki lu lu normal la en fait parce que nit ki soo demee di faju wala nga dem di jàngi wala nga dem di liggéey da ngay signé contrat te contrat yooyu nga signé aussi da nga koy war a respecter pour mën a euh, nekkin bi mën a neex ñëpp mën a gis seen bopp nekk en sécurité waaw te loolu moom waaw duñ jóg ci dinañ ko rappeler nekkul groupe rek pour nekk groupe mais groupe formation la euh, on est protégé par la loi parce que on est donc euh, dañu am permis d'exercer du coup dañuy topp charte yi nga xamante ni daal mooy chart yi ñu protégé. ñu wuyu Oulimata Ngom salaamaaleykum wa rahmatulah. waaw Ouli noo def yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm yëkkatil yëkkatil baat bi yëkkatil baat bi. macha allah yëkkatil baat bi tuuti ñu dégg la. allo. allo ñu ngi lay dégg boo mënee yëkkati baat bi tuuti. waaw yaa ngi may léegi ñu ngi lay dégg waa kay.

effectivement macha allah bu nekk bu nekk formation boo xam ne dama ne am na cinq am na avant cinq jours am na pendant ak tamit après. Mhm, effectivement. Euh, man mii tey jii tey fi ma toog di woote danga doon def fin formation euh, saison 4 mhm. maa ngi doon toog tamit déglu témoignage malheureusement fekk boobu maa ngi doon soo a xam. Mhm. doon toog di déglu témoignage yi macha allah mu gis famille yi ñuy ci seen sorte de libération bu ñu am. libération ci problème yi ñu amoon ci seen bopp te xamuñu fu ñu koy waxee. sànq naa mm-hmm. ñu dégg soxna naka sax ñu wax ci sécurité. Mm-hmm. ndax yenn saa yi da ngay waxanteeg xarit wala nga waxanteeg sa papa wala nga waxanteeg sa yaay. Euh, malheureusement ñoo ngi yaakaar que ni suñ ko waxee ñeneen say soxla dina mën a faju donc euh, sécurité boobu dafa neex ci formation bi trop. Mhm. Euh, may wax rek ni ku ci nekk rek ci soxla yi mhm. am nga benn problème boo xam ne tey jii moom moo nekk ci soxla mhm. yàlla di dox yàlla yàlla jàppale la. ba nga mën a tasee ko ci Fatima ak tamit li muy fànn. yenn saa yi nga dégg nit di wax nii rek nga gëm li muy wax dafay métti tant que duggul ci biir. Mhm. liñ naan li nekk ci biir rek ñoom ñoo mën a xam. Mhm. affaire bi ni mu neexee li mu kii li mu li muy li <laughs> muy dugg ci day amoon ci yaakaar réccu réccu ma ko. Mhm. réccu ma da ngay ñëw indi sa problème. nga yaakaar que ne yow ci problème boobu rek nga yem te nekkite yow. yow li nga xam ne moo la bloqué yow mi sax xamoo ko woon parce que mm-hmm. xamoo woon ne sax kañ existe na déjà sa relation ak sa borom foo ci foo ci toll mm-hmm. ndaxte yenn saa yi topp nit topp àdduna ba fàtte ki la sax mm-hmm. jàpp ne julleeg woo rek doy na problème soo ko génnee ci say dund rek solution boo mën a appliquer doo ci doo ci génn ndaxte fi nga laaj ci boppam foofu macha allah ñu am ay jàngalekat yu ñëw ñu jàngal lu leer ci diin bi di ñu jàngal lu leer a leer a xam ne soo ko déggee rek. li mhm. nga xam ne lii doo ko ndax am na ak amul ak mhm. euh, yow yaay yow yaay kan. Mhm. li nga xam ne mooy say point fort li nga xam ne mooy say concept. parce que tey di nga gis nit di def dara nga ñëwee ci loolu ne damay def pare. Mhm. Ah, yaakaar naa ne cinq cinq pour cent bi sax doo ko mën lu tax parce que yow mhm. meloo meloo noonu. mën na ko fi nag di soxla sa bopp di rey sa bopp matin bi di nekk ci te soo xoolal cinq point four rek xool li la yàlla jox. Mhm. di nga toog ci loolu travailler côté te macha allah njëriñ da nga ci ci gis. loolu mu nekk information boo xam ne déjà soo ko amee ci sa adduna rek da ngay avancer ci lu bëri ndax ci li ngay bàyyi ci boppam bu mu bëri da ngay gis que ne amul na benn benn benn jël. Mm-hmm. beneen euh, aspect bi tamit mooy ku ci nekk rek euh, war na mën a xam ni ñu ngay parce que kenn kenn kenn nekkul ci àdduna rek moom moom kese. Mm-hmm. te nit ñi soo xamut doo mën a jëflante ak ñoom ndaxte yenn saa nga romb nit wax ko benn wax mu metti ko nga romb beneen nit wax ko même wax bi du ko metti lu tax parce que mhm. ni koy déggee du benn loolu nag mu nekk ay sew sew yoo xam ne mhm. euh, soo am kenn ku la ko ku la ko jàngal ba pare tamit jàngal la ko ci société sénégalaise bi ñuy waxee parce que société sénégalaise bi muy doxee yeneen société bi muy doxee bokkut. moo tax sa coach macha allah moo ñemee ko marqué. mën ngaa dëkk feneen di appliquer méthode yoo xam ne ñoom dëkk boobu lan la ñuy appliquer. surtout ko demee appliquer ko Sénégal wala ci yeneen réew. ça ne marche pas yeneen réew da ngay réer carrément. ça ne marche pas. ça ne marche pas du tout. man mii mos benn de benn. formation développement personnel c'était même plus sur l'économie mhm. mais da ngay gis ne di soo ko demee appliqué Sénégal nañ la ne yow da ngaa dof wala <laughs> ñu moom ñoom. waaw ah, yàlla cee di benn la fii ko xam ne de foofu. effectivement. kon daal euh, mun ak yeneen yeneen i yeneen i points yu nekk am mhm. importance tamit loolu l' éducation des enfants macha allah. Mhm. parce que tey jii ñu ci nekk yaay malheureusement yenn saa yi da ngay am benn boo xam ne. Mhm. peut-être ñeent ko la mais xamoo lan la ci ne xamoo lan moo ci xamoo lan moo ci nattare. Mhm. xamoo tamit li nga war a changer mbir yi ba say doom yow li nga mhm. manqué woon ci sa ci sa ci la volonté malheureusement li nga yow li nga am rek moom moom moom ngay mën a joxe mënoo joxe leneen tant que ce système changé. Mhm. changé woo ko te loolu moom dafa laaj dafa laaj xam-xam. effectivement. te xam-xam bi macha allah fekk nañ ko ci biir formation bi. Mhm. bien que yenn saa yu dégg yoo xam ne dina la dina metti sa xol dina. dina mhm. la réfléchir ci lu bëri mais mais en bien parce que. Euh, lan lu lay lu kanam rek. mais bu mhm. fekkee da lay mu métti la tax moo gën mu métti lu suuf. Mhm. di wax ne rien que pour sujet boobu rek képp kuy yaay. di dégg mhm. témoignage bi wala képp sax ku sax ku sax nar doon yaay parce que ne njàng que ne xale bi ci ci yenn yi ñuy def avant grossesse avant conception bi ñoom seen ñu ñëpp daf daf koy daal. te am na ci yenn yoo xam ne suñ ko mënee suñ ko mënee éviter. donc duñ ne ñun ñoo xam lépp duñ ne ñun ñoo mën lépp yàlla rek ko mën. Mm-hmm. waaye nit tamit war ngaa mën a sababul sa mm-hmm. kon daal allah mën naa ne bi xam-xam mi ngi mm-hmm. euh, euh, tamit mi ngi ci parce que yenn saa yi da ngay ñëw. surtout bu fekkee nu euh, mu tuddati mos ko dugg yenn formation yi da ngay bañ te soo waxee problème ñu xeebal ne ko. wala ñu reetaan la. ñu jàpp gën a dof. Eh, di wax que ni groupe bi macha allah kenn jàppewul kenn dof ñi fa nekk sax duróowuñu sax ay sax dof ay femmes yoo xam ne ay ay très fortes femmes de valeur surtout mm-hmm. yoo xam ne eh, am nañ seeni seeni business di leen di doxal mm-hmm. ñeen ñi am seeni entreprise di leen di doxal taxawaalu wuñu matin matin ñi di soir mm-hmm. c'est bon à préciser loolu parce que yenn saa yi nit ñi dañuy gis jigéen ñi jigéen ñi tafe ñu yaakaar mhm. ne ci moom kese lu mu tuuti jeexñaa bi nga xam ne moom moom mu jéegéen li ñuy liggéey ci bu région déedéet ak ah adduna bi léegi dépassé nañ foofu yàgg yàgg yàgg yàgg kon daal di wax que ni macha allah. sant yàlla di nga di nga mel ne di nga am benn kër ne nag fay mm. nekk rek. sant euh, lay jox jox jox ba balaa ngaa ba doo sax doo sax bëggati ñibbi te yaakaar naa ne ñun ñii mm. loolu noonu moo ñu <laughs> di ko sant yàlla nag. sant yàlla mm-hmm. sant di la ci lool di ci remercier

te man mii su ma ko xoolee ci sama cas am naa ne surtout instant bi mu toll ci ñaari ma war a liggéey. gën a jege ci sama sama borom. ci la ci la doon ndaxte bu ñu fàtte que def coach lépp lu muy jàngale daf ko teg ci diine. Mm-hmm. ay waxu kasaw kasaw du ay waxu xaaral ma dem bind sama livre ñëw déedéet. xam-xam. macha allah donc euh, nekk lu am importance ba pare tamit gën a tamit xam sa bopp balaa ngaa jox keneen. Mm-hmm. kon daal loolu laa amul ma ne xaaral wax ko ci formation bi. macha allah xam naa ne yeneen saa mi dinañ ci dooli ndaxte luñ ci luñ ci wax rek. Mm-hmm. kontaan nañu lu des. kontaan nañu mm-hmm. ñaan yàlla defal la jàmm. defal formation bi fi mu nekkoon ci biir te xam mu en ligne yàlla ci ci say entreprise lañ ci ci kaw ci moom allahuma amin amin ma chérie allahuma amin kontaan nañu vraiment kontaan nañu waa di la Mm-hmm. merci beaucoup en tout cas ça a été un grand plaisir waaw am na solo parce que dafa am solo euh, femmes yi li nga xamante ni tey chaque saison avec des nouvelles personnes donc comme ni ngeen ko déggee rek Oulimata wax ko c'est sa première session te chaque saison gëm naa ne bu dee yàgg ngeen ñu suivre di ngeen gis ni mm, da ngeen di gis ay soxna yu bees et que soxna yu bees yooyu da leen di gis ñu ñëw di wax la même chose li nga xam ni ñi fi jiitoo moom la ñuy wax. est-ce que dafa nekk loo xamante ni <laughs> dañuy wax pour wax yaakaaruma yaakaaruma loolu ndax jàpp naa ne képp ku fi yéeg pour wax loo xamante ni euh, amal la njëriñ euh, du am sens waaw du coup ñu daal di dalal ñi laan ñu ngi lay dalal ne la yegsil ñu bàyyi la nga nuyoo après ñu bëgg a ubbi seen caméra ñu jàkkaarloo ñu bëgg a ubbi seen micro comme saa ngeen ñëw benn par benn donc ñu leen di déglu. waaleykum salaam wa ñu laa ñu ngi lay nuyu di la ziyaare notre assistante de cœur yegsil macha ah waaw gis gis naa yow tamit fi fi ma jàppale sama sama couleur di di di de l'année macha allah yegsil ñu ngi lay delloo ziyaar macha allah. macha <laughs> na woon fa woon rek. Mhm. <laughs> di kontaan ci témoignage yi ñu jot a dégg aussi wax dëgg yàlla ah, day confirmer rek ah, li xew chaque chaque saison chaque session. Mhm. nga gis ni comme ni nga ko waxee léegi rek témoignage tout le temps benn lay doon ngërëm lay doon témoignage yoo xam ne aussi ci femmes yoo xam ne daal kontaan nañ ci liñ découvrir. njortewuñ euh, euh, woon sax dinañ am loolu lépp ci formation bi donc mm-hmm. ñu am ci toujours ay surprise yoo xam ne surprise yu yu neex la mais ñun moom du ñu surprendre parce que yàgg <laughs> nañ fii et gis nañ ni mm-hmm. voilà chaque session rek level bi day gën a yéeg chaque année ñu ni ah jàngoon nañ peut lool loolu ba moytu répétition lay doon mais buñ duggee dañuy gis ni day mel ni c'est la première fois ñu koy jàng tellement à chaque fois dañ ci indi lu bees am ci compréhension bu bees ci njàngoon am ci yeneen yoo si dolli yoo xam ne euh, day mel ni lu bees si ñun donc duñ doyal saa su ne di dugg ci session yi di bokk parce que euh, dollante lay doon tout le temps et que liñ naan jàngu du wees mais jàngu aussi du doy. Mhm. chaque jour rek nga gis lu bees loo mën a yokk. ci mhm. sa ci sa ci sa ci sa jàng ci sa xam-xam pour gën a mën a améliorer. Euh, sa nekk ci kaw suuf sa jëf nit ñi euh, gën a améliorer aussi sa diggante ak sa borom parce que comme ni nga ko waxee rek mhm. euh, formation bi man li ma ci gën a marqué mooy côté côté diine bi waaw le fait lépp ñu teg ko ci suñu diine lépp nekk li nga xam ne daf ñuy gën a jegale suñu borom gën a defaraat relation yi ak suñu borom donc loolu nekk na li nga xam ni moom ci gën a marqué man jël naa ci côté boobu mooy côté. Fatima tëjal sa micro yow mi soog mhm, a yéeg xaaral mhm. ma waaw. waaw tëj na da doon graisse gën a jege sama borom. parce que des fois da ngay juddu nekk jullit mais sa nekk jullit day nekk loo xam ne en fait da nga ko doon. donc ci formation mu am ci lu ma marqué mooy bi ñuy def ay cours nga ñu expliqué que ni ba ñu signé benn contrat ak yàlla suñu borom mu def ñu aussi. ñu judd ci famille jullit mais ñun décidé wuñ nekk jullit donc nga war a jël décision que ni yow tu acceptes d'être musulman da nga nangu nekk jullit. Mm. bu boobaa da nga lan mooy nekk jullit loolu nekk na ma lu ma marqué ma toog ma ni ma en quelque sorte elle a raison parce que man musuma toog ni mais man lan moo tax ma nekk jullit dama ko nekk rek parce que samay waajur nekk nañ ko mais est-ce que man mm-hmm. décidé naa ko donc bis bu ma jëlee décision boobu. Mm-hmm. ban impact la war a am sama dund. donc loolu nekk na lu ma marqué surtout ci mm-hmm. session bi ñu jógee euh, ma jàng si aussi mën naa ni jàng xam man maay kan. Mhm. parce que des fois da ngay dund di dem rek mais doo jël temps wu concentré wu jàng yow yaay kan. Mhm. da ngay définir sa bopp comme nit ñi liñ lay wax say waajur par exemple naan la ah yow de da yaru yow de mosoo moon sonal yow de nangam donc nga jàpp ni yow nit ku yaru nga yow de da nga calme nga jàpp nit ku calme nga mais face ay situation ni ngay réagir nga toog ni mais man en fait man maay kan. donc chaque expérience de ta vie ngay jàng xam yaay kan. xam lu mhm. lay merloo xam lu lay loo xam sa personnalité surtout xam sa ay blessures ñu jàng blessure de l'âme mhm. yi nga xam ne mooy déterminer lu bari ci dundu doomu aadama. Mhm. donc jàng boobu aussi dafa nekk loo xam ne lu am am solo la si nit parce que des fois di nga dund ba génn àdduna. malheureusement doo xam sax yow yaay kan parce que. musoo toog posé sa question boobu. ngir ma découvrir au fond de toi qui tu lan mooy yëngu sa biir bi. Mhm. nekk am am solo euh, ak yow ci néeg yeeg nga jàngal ñu nekk de meilleure maman de meilleur parent communication bi ak njaboot gi lu ñu war a nekkee ak suñu ban nekk une meilleure maman. Mhm. donc loolu jàng naa ko ak yow jàng am benn relation bu di tax ak sama samay doom te loolu dama naan yaay bu ne loolu lay ñaan. waaw. loolu day dara ah. donc ñu koy sant bu baax a baax même suñu relation suñu parents parce que dañuy jàng rek waajur da nga ko war a respecté. waajur lii mais jàng am affection ci say parent ak accepté. ak sa parent doon ak lépp lu mu ci suuf mm-hmm. xam ne yàlla moo la tànnal parents yi et que yi nga waroon a am. pour mm-hmm. sa ay jaar-jaaru àdduna yi nga xam ne yàlla décidé na ko nga war cee mën a jaar ak manière bi ñu ci jaaree. Mm-hmm. donc loolu lépp. dañ koy jàng ci sawet wet mu doon loo xam ne tamit euh, lu ama am solo la macha mm-hmm. allah en tout cas li ñuy jàng yëpp mënuñu ko fii lim mm-hmm. <laughs> tellement dafa bari dafa riche donc liñ naan ku ko dund rek mënoo koo xam daal waa kenn mënu koo nettali mais bëggoon nañ ci sa nekk kàddu aussi mm-hmm. ci li nga changé suñu dund li nga changé suñu dund parce tey bu ma toogee fii euh, di témoigner dama ni avant ma lay xam mm, mën naa ni toog di témoigner tey kon duma ko mën peut maa ngi toog di jooy <laughs> parce que voilà sama borom kër dafa <clears throat> dafa tukki am ay temps ma nekkoon ci dépendance affective bu metti donc <laughs> <laughs> période yi ah, daf ma daan fekk ci moment yoo xam ne day metti mm-hmm. daal yaa ma gën a xam yàgg naa laa woon di jooy donc ma nee toog tey tey la dem ma toog fii di reetaan di kii c'est parce que yar nga ma defal nga lu bari ci man loo xam ne tax na ma ma grandir ma mûrir ma devenir plus mature mm-hmm. et que ma jël sama dund en main mm-hmm. <laughs> donc mu doon daal waaw amuñu sa fay daal yàlla lañ lay bàyyi yàlla yàlla la fay mm-hmm. li nga soppi suñu dund daal euh, mënuñu koo lim euh, yàlla xam na man <laughs> ko yàlla xam na yàlla yàlla bu baax a baax ñaar jigéen ñëpp ñu jéem ñëw ci formation bi parce que Euh, wax dëgg yàlla dundu ta ñamoo fiir daw si coaching ah. Mm. gàtt maa la de <laughs> oh, macha allah da lay indi ci aspect yëpp mm-hmm, ñu fexee def de notre pour bokk ci formation yi du ngeen ko réccu daal ñun de réccu wuñ ko te mm. xam nañ ni yii ñëw day gën a dàq gën a neex. ñu mm. gën a ñu gën a jëm ca kaw. élevé wu spirituellement élevé wu personnellement élevé wu ci tous les plans être une mm-hmm. mm-hmm. <laughs> macha allah <laughs> am na solo kontaan nañu vraiment waaw ah, parce que Gnilane c'est notre assistante waaw ah, depuis suñu ay début mu ngi nekk ak ñun donc nekk élève bu assidu waaw élève boo xamante ni daanaka mën nañ ne léegi bu ñu nekkul ci formation bi moo ñuy secondé et qu'elle s'est beaucoup investie en elle-même et que ça se voit fruit yi ci à travers tey ci viom mais aussi à travers tey euh, lépp li nga xamante ni tey formation yu mën naa ne élèves yi bu ñu amee problème ci yenn questions yi nekkuma fa donc moom moo fi nekk maman Oumou ah, donc euh, c'est quelque chose boo xamante ni je me dis que euh, nit ki lu mu bëgg a acquérir ci àddina rek bu amee volonté rek dina ko mën a acquérir parce que rien n'est gratuit dans la vie parce que formation du rek ay wax mais pratique bi c'est dans ta propre vie que ça va parce que à chaque fois da nga ne yàlla pare naa maa ngi nii tey nga dee yàlla suñu borom dina la <laughs> teg ay <laughs> yow da nga mel ni ba nga juddoo ba tey mosu woon am nattu <laughs> ah yàlla dina la challenger dina la jox ay nattu dina la jox ay. Euh, c'est ça dina jox ay nattu yoo xamante ni il va euh, falloir yow li nga jàng nga appliquer ko pour voir réellement si ça marche ou ah, foofu na ngay xamee nag. est-ce que lii ma jàng ça va marcher est-ce que man tamit am na capacité challenge sama bopp comme yàlla suñu borom natt yu may teg ndax li ñu jàngoon mooy yàlla bu leen tegee nattu da ngay muñ nga jooy nga toog bàyyi bu passé et avec 5D da xam ne natt bi yow si jëmu bopp euh, euh, personnalité nag lañ koy woowee euh, acteur nga si et acteur boo joué wul sa rôle sa dañuy wax ni dund bi yow yaay sa lu ñuy acteur en fait yaay décidé sa film neex wala mu naqari et que événement yi manière bi nga leen di jële mooy changer sa cursus su destin événement bi euh, ni nga koy jëlee mooy tamit euh, yàq sa cursus su destin donc tout dépend de toi ndax dëgg la yàlla suñu borom dalay bàyyi di la seetaan en certain moment nga naan yaan naa yàlla ba sonn mais ma non yàlla suñu moom day xaar nga activé wu ndax tey mënoo ñëw nga ni jàppale ma après ngay mu yenn show bi moom kase yàlla tamit soo ko nee dimbali ma wala yàlla génne ma ci li ma nekk day xaar nga activé wu pour mu wan la dooleem et ñu bëri nag malheureusement comprendre ñu ko donc ñu xam ne cinq d so des femmes yoo xamante ni des femmes macha allah yu yor seen kër yor seen sëy des femmes indépendantes ñuy liggéey yor seen njaboot bëgg baax bëgg defal seen dund defar seen sëy defar seen diggante ak seen borom defal seen diggante ak seen njaboot ba nga xam ne seen dund dina dal. parce que jigéen ñu ba tey ñu ngi nekk ci mariage ñu ngi nekk ci àddina mais dañuy subir seen vie sa dund spiritualité dangay julli woon rek muuru nga pare nga si nga ni ah. ah maa ngi julli maa ngi woor bu ñu la nee est-ce yaa ngi dund sa diine nga ni mais maa ngi julli maa ngi woor pour yow ça s'arrête là et c'est plus profond que ça c'est plus sérieux que parce que sa diggante ak sa borom tey dafa am loo xam ne soo ko comprendre mënoo ko mettre en pratique waaw ah, te ñu bari ci ñun jigéen ñi malheureusement dañu négliger xam-xam cinq day lay njëkk jàngal mooy nga am la goût du savoir nga xam ne àddina bi ci xam-xam rek la ñuy euh, le discernement di amee en fait yàlla suñu boo wax na ko yoon bi nee na naa la nga nekk jirim ma jox la xam-xam xam-xam yëkkati la xam-xam day yëkkati nit day màggal nit dafay purifier nit daf lay valoriser tey fu ay nit toogee bu ñu waxee rek nga xam ni cay dof ak ñi nit ndax la moo koy waral parce que li nga xam ngay wax tey soo waxee waxu daf ñu ne moo cim kii de xool ko ni mu mel ni et boobu dara nekku ci donc yow sa valeur mu ngi dépendre ci sa niveau li nga xam ak ni ngay comporté woo ak tamit li nga xam est-ce que yaa koy sa comportement donc loolu nekk lu am solo lu ñu war a bàyyi xel salaam rahmatullah maa umu activer sa caméra bi. maa umu leer ma ne sañse nga maa <laughs> umu. maa umu daal léegi koy <laughs> day sañse ba pare nag nekk ci ginnaaw caméra bi say <laughs> say leçon mokkagul boo ko non boo ko décidé boo ko bëggee rek bu fekkee ça te gêne pas si ça ah. ci wetu micro bi. waaw. yi daa mel ni am na ñuy wàcc de waaw mu ngi noonu ci wetu micro bi. xaaral ma xool ah waaw yow amoo caméra effectivement amoo caméra waaw dafa kii parce que des fois am na ñoo xam ne amuñu ko ñëpp ñoo koy am waaw du ñëpp dafay dépendre tamit ci abonné yi du ñëpp ñoo koy am d'accord ñu ngi lay déglu kon waaye gis nga li nga li nga bëgg rek la la yàlla defal ok <laughs> ñaar xam nañu waaye ñett xamul <laughs> nañu bàyyi noonu. woon <laughs> gis nga dafa bëggoon nekk élève bu ah waaw dafa jot de. <laughs> dafa jot waaw dama dama waaw daal li wax naan léegi moom ba kii euh, na. xar na mbate vraiment. Uh-huh. waaw. macha allah waaye waaye ñuy kontaan bu baax a baax macha allah mm-hmm. Fatima. Euh, ju euh, bu bu période yi ñëwee dañuy yëg euh, mm-hmm. wéetaayu xol. Mm-hmm. certes parce que noonu la noonu la demee daal sama côté dama koy yëg parce que li may li may li ma jëlee ci 5D dafa bari. depuis bi 5D di commencé ba fii foog naa benn saison laa mos a te toujours comme ni ko Njilaan waxee danga naan maa ngi dem xam naa ne am na yoo xam ne jàngoon naa ko mais pour yi boo koy déglu dafay mel da koy déglu pour la première fois. Mm-hmm. di si jàngat lu baree bare Fatima mu ñuy def ñuy dañuy man man par exemple damay mel ne dañ may dañ may façonné de jour en jour. Mm-hmm. tey dama ne tey dama foogoon ne sax ñëppay wax ba xale yi da am na si ñoom ñu décidé woon ne dañuy euh, dañuy ah, dañuy dañuy yegg si dañuy xale yi ci lañu waaw waaw parce que mm-hmm. yëg-yëg yi Fatima mënoo ko mm-hmm. imaginer ci côté yëpp nag. macha ci côté yëpp mais man li nga xamante ne moom laay wax toujours comme te ni nga koy waxee moom. sa mm-hmm. connexion sa diggante sa borom boo ko mënul def ak moom. suy woo moom bul def développement personnel. rawatina nag ñu ñëw am développement personnel boo xamante ne dafa. danga ka segg comme ni nga koy waxee toujours danga ka segg ak tala tawxiid te damay wax ne lu dul tawxiid rek mën nit ki moom mën na ñàkk lu nekk waaye yàlla bu ñu yàlla nattoo ñuy ñàkk suñu tawxiid ndax mooy tey mooy ëllëg te comme ni ni ñu koy ni ñu koy waxee toujours suñu objectifu dund si na du jëkkër yi du njaboot bi du liggéey bi suñu objectifu dund bi ñu yàlla di bind daf bi ñu posé question yi ba ñu tontu yi ba wàcc mhm. waaye tamit bokk ci tamit dafa daf daf nañu binduma nit ak jinne lu dul ñu mhm. loolu damay wax naan képp koy jullit war nga tout le temps nga di def tadabbur boobu kalima mhm. di ko xool di ko seet di ko seetantal parce que loolu boo xamee objectif bi la indi si àddina am na loo xam doo ko foowee parfaire sa sa sa chaxsiye sa personnalité dafa war jullit bu nekk chaque jour war nga nag waaye jiital si nag sa diggante ak sa borom yàlla lu mu wax yonent bi salaa salaam doguma la yàlla na yonent bi sallallahu daf ko wàccee uniquement pour mu compléter les les les les bons waxul waxul diine de mais comportement la wax. waaw ah, te comportement ci biir ci tawhid lay découlé. tagg ko tamit ci jikko. waaw mhm. kay sa comportement mooy tax tamit sa jikko baax. Mhm. mu tagg tamit sallallahu alayhi wasallam ci mhm. waxu ko ne woon yaay doomu diw comme ni nga xamee. du jaagoo du jaagoo loolu nag muy daal te te te te jikko moom mooy développement personnel. ci mm-hmm. boppam parce que boo xamulee sa bopp xamoo ñi ngay interagir yow doo mën a nekk ci société damay wax ne waaw man nangu naa dama dama umu bu njëkk ba dama ci def quoi. <laughs> renaissance maa umu renaissance ba léegi ma sant 5 nag maa umu 5D noonu man nangu naa parce que Fatima euh, mm-hmm. am na ci ay euh, yoo xamante ne. bu la boo ko jaaree. Mm-hmm. ak tamit duñu xale. Mm-hmm. am na yoo xam ne boo fa jaaree yegg si benn stade bi sa àddina. Mm-hmm. di nga xam ne vraiment yàlla defal na la taw fii. taw fii la dugalee si genre euh, euh, groupe yu mel nii. Mm-hmm. parce que groupe yi dañu bare en fait. dégg ay groupe yu euh, nopp sa jëkk rek ay groupe ay lu du n'importe quoi. yoo xamante ni suba ba ngoon jot man damay wax ne. am na émission télé yoo xam ne dama ko daal seetaan si damay toog léegi di reetaan sax dama naan tellement que dama collé si émission yooyu xoolal ma bii perte lan laa ci doon ut en fait. billaay te lan la ma apporter da ngay làmbaatu da ngay mel ne bumba buy làmbaatu. Mhm. boo amulee développement personnel. Mhm. doo daj doo daj lu dul nga dugg. jàng pa ak ban développement personnel. waaw ah, surtout parce que man am naa. Eh, waaw am naa sax sama benn doom bu ma mës ko mu ne ma est ce que loolu dina nangu nag. Mhm. ma ne ko xaw ma bande nii bii moom dina def ci d' accord. Mhm. Mhm. bii moom Seydina Mouhamad bu ñëwaatoon si suñu jamono ji dina ne bépp jigéen nag daw dem bokk ci biir kii développement personnel. dañ lay récupérer ci société bi delloo la yàlla suñu borom. mi ngi noonu mi ngi noonu. te xam nga balaa may bëgg dee rek ñu naan boo amee problème waaw zikr waaw dëgg la. Hmm. mais zikr da koy yëg. te liy tax nga yëg zikr mooy mooy nga defar sa intérieur dund. liy tax nga yëg alquran nga yëg buy alquran li mooy mais du toog rek naa damay zikr maa ngi jàng alquran waaye pourtant te boo ci jógee. da ngay mel ne da nga tilbitiwaat da nga c'est-à-dire que niveau nga jóge woon naan da ngay faj da gën a raakaaju. malheureusement man man li may wax man dama. waaw dama ko dund. dama non lu yéeme lu yéeme dama ko dund tamit. Mhm. lu yéeme te tamit soxna yu nekk si groupe bi yëpp bu ñuy ñëw. benn kii rek ngay dégg nit ñi sax sax nañ sax da gis euh, léeg-léeg Fatima bu convention bi soo commencé dañuy yàkkamti naan waa lii nag duñ ko jàng lii waaye da ngay gis bu def bu fin formation jotee na. dañ naan bëri na <laughs> bëri na bagage yi ndax yéeg-yéeg bi waaw parce que parce que xam nga kenn du dem man doo imaginer ne lii di ko fekk si si si mhm. formation bi mënoo ko imaginer yow bu dee côté économie ñu ne la kaay nga xool nooy gérer sa kër mhm. xool nooy gérer ay économie xool nooy épargne mhm. su ko su dee côté euh, relation ak nit ñi ñu ne la ñu jàngal sa bopp d'abord fajul yow à la base sa ay mbir sa ay euh, lënt lënt sa ay góoma sa yooyu demal nga faj ko def si alcool faj ko ba mu wér nga ñëw jàkkaarloog société bi ñëw defaraat sa digganteeg sa borom déclic spirituel boobu ñuy am. mën a gérer suñu ay émotion te diina jàngaloon nañu ko bi ñuy ñëw neer na waaye dégg ñu ko woon dégg ñu ko woon man moom ma neree maa rëjee taali comme gaynde bu dof léegi nag man ma la nit ñi di def man manaa toog man di xàkk saa dégg la sama ay tànk xam nga dañoo jàpp ne am fulla dañoo jàpp ne am fulla mooy boo boo meree rek bu daal di exploser léegi nag yow dangay dem ba nga xamante ni sax yooyu danga koy wàll sa ay sa njaboot. Mhm. kër gi di neex Fatima. xam nga nit ñi di épanouir ndax jigéen mooy neexal kër. Mhm. ndax sakina boobu ñu ñu wax ak dal boobu nga xam ne moom la góor. wallaahi jigéen am na nag nooy mel si sa ay humeur. te mhm. ñëpp xam comme ni nga ma xamee xam. ñun duñ dóoruwuñu fayuwuñu waaw ah, ñun lu neex ñu toog la ne kaay gis ngay ngay bañantu ah kaay gi doxal yaa ngi sa confort rek waaw bu bu bu caméra bi tàkkoon nga xam ne sama confort laa nekk <laughs> yow yaa ngi sa confort rek toog waaye nag boo demee nag ba faj maan jël la nag jox la sa ay vitamine sikiir la ah yëlax la bës la ne la maa uma dama bëgg ngay wax ci kaw nga ñëw di lemm leemal ay ñoom cim <laughs> léegi dama romb sax ñoom ji laa léegi non bilaay ah. nga commencé di wax di exprimer wu. Mhm. Fatima nga toog si si si milieu. nga xam ne boo toogaan si milieu tu te sentais doo xam sax yow loolu ban qualificatif ngay jox sa bopp. Mhm. mais léegi tu t'exprimes tellement bien ànd sa benn éloquence. Mhm. da ngay kontaan sa bopp. waaw jigéen ba dañ naan mënuma wax mënuma communication nan laay def. <laughs> léeg-léeg da ngay wax ba pare bu dee surtout milieu yoo daan toog nag da ngay wax ba pare nit ñi di la gëstu di xoolaat. Mm-hmm. démb am na ku ma posé benn question ne ma yow léegi nii ngay waxtaanee nii li da lu la dab la wala. <laughs> ma ne ko dama defaruwaat. mama mm-hmm. Oumou moo defaru yàlla moom moom moo ñu sant ñuy parfait suñu suñu suñu bopp dama defaru mm-hmm. dama defaruwaat ba ñëw toog ni jàkkaarloo ak yow. wala ah non sa jàmm yàgg. mooy nit mën na changer nit mën na changer. mais lan moo lay jox envie de parce que ñu bari bëgg nañu changer mais est nañu envie changer. waaw surtout waaw ah, loolu tamit foofu tamit. Mm-hmm. Euh, jar na ok parce que li ñuy wax na jàng du jàng rek mais jàng danga koy jëfee. Mm-hmm. c'est-à-dire que Fatima mën na sonn joxe ay cours expliquer exprimer wu bëgg ñu kii mais am na loo xam ne boo ko appliqué wul doo dem. Mm-hmm. doo dem il faut que yow mi nekk si terrain bi ngay appliqué ba pare tamit nga am détermination. c'est ça motivation rek doyul da ngay na man. Mhm. lii laa bëgg jëm. Fatima tey nii mu toogee ni muy exprimer woo nii mu kii man tamit bëgg naa toog ma nit benn jour ma ma am lu ëpp loolu ma mel ma yegg foofu te loolu nag détermination moo la koy may. Mhm. waaw maa mu tontu kooku ci yëpp. tontu kooku ci suuf. <laughs> ah allo. nee na est faut être voilé pour. s'inscrire non non. déedéet déedéet. déedéet. waaw waaw mi ngi noonu. jëlaat wuñ. waaw non non. voilà am na fa nekk voilé wuñu. Mhm. yow daal ñëwal rek ñëwal dugg si. Euh, incha allah di nga fa fekk loo xamante ne lii ñuy wax nii si kaw nag la. Mhm. mënuñu dugg ci biir ci biir ci biir ci détails yi parce que il faut nga dugg ci biir euh, formation bi pour am yoo xam ne dañ ko acquérir mais. li ñu xam daal ci suñu témoignage mooy ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax man fekk de xam naa ne ku ma ko magul magoo ma fa. te tamit euh, macha allah yàlla nit ñi mi ngi suturaal bi ñu fay bokk ba tey ñu ngi gën a sentir suñu bopp. ci mhm. côté yëpp ci domaine yëpp. sant yàlla ci bu ma nee ci domaine yëpp mooy ci domaine yëpp. ñu ngi sant yàlla. Mhm. suñu couple suñu yar njaboot suñu côté finance suñu comportement. suñu lépp ba pare macha allah da dem ba yow da ngay commencé sax di coacher ay coach yu ndaw di joxe ay. ay bagages daal. Ah, parce que am ngeen ay bagages nag waaw. di régler mhm. di fier sa bopp. te loolu tamit ñuy wax alhamdulilah yàlla boole nañoo Fatima Zahra. Mm-hmm. te tamit ñi ngi ñaan daal yàlla téyeel ñu suñu ànd bi Fatima ba Firdawsul Aala comme ni kaw tuddee groupe bi Firdaws coaching. Mm-hmm. yàlla na soxna yëpp xam développement personnel yàlla na àddina bi yëpp xam développement personnel. ndax ñëpp nekk ci jàmm. en tout bu baax a baax. ñoo leen gis sama rose bi tey. ah billaay def rose bu baax. essayé xool ba xam essayé xool ba xam. waaw dinaa xool ba xam waaw la la yaa di defar. ah waaw oh, ah, loolu la de. <laughs> vibration yi. <laughs> vibration yi day daal de correspondance lay laaj. waaw pour ngeen bokk ci formation bi formation bi ça dure 3 mois. donc pour ngeen bokk ci mën ngeen dem ci site bi ngeen inscrire directement léegi léegi. wala mën ngeen bu dee Sénégal ngeen nekk mën ngeen ma bàyyil message ci WhatsApp su ma pare naa leen répondre benn par benn. wax leen euh, boole rek sama assistante bi mu ngi noonu ci kaw faatuma Diouf bu ko defee moom euh, ay coordonnées ngeen di jël ngeen daal di commencer inscrire ñu jox leen règlement yeeg modalité yi donc euh, ngeen inscrire déjà présent parce que avril la ñu war a démarrer waaw lu ngeen gaaw gaaw gaaw mu gën ci yéen ndax place yi aussi c'est limité ah parce que bu ñu feesee après dañuy tëj waaw daaw moom dañoo teel a fees teg la suñu tànk waaw <laughs> ren nag ku gaawul bu ñu tëjee duñ jël kenn waaleykum salaam wa rahmatullah waa kii nag mooy la grande royale yegg si <laughs> dañuy jot leen di jëlee la. merci beaucoup lalal nañ la ay en tout cas kontaan nañu. ñu ngi a a ñu ngi ñoo la gën a kontaan bi laay. ñun xam nga liñ bëggoon ma am wax na ko. ndax yaakaar naa ne jàng jàngoro yi benn la woon. Mhm. ma ne ko jàngoro yi benn jàngoro yi benn la woon bu ñuy amul dama nekk xale ndax dama war a filaay bokk ko ci am dama nekk mag war maa bokk en a mhm. ci day te ni njaboot gaa mhm. a am joyante yu bëri yoo xam ne war nañ ko def surtout wàcc ko ci njaboot bi. Mm-hmm. macha allah di nuyu soxna Aïssatou ak euh, soxna Njiraan moom macha allah di kontaan ci seen mm-hmm. toogaay. macha waaw euh, yaakaar naa ne ñun moom euh, dañuy wax di waxaat di waxaat comme ni ma ko waxee parce que ni ko suñu mbokk ma waxee dañoo jëlee ci dara yóbbuñ ci éew. Mm-hmm. ndax li gën a métti mooy li nga xamoo sa bopp. nga jàpp ne nag yow xam nga sa bopp ba xam ñeneen ba xam keneen. loolu moo gën a métti ci at. te loolu moo ñu dara def yàlla. Mhm. xam naa lu ma fi wax lu fi ma amul waxul lépp lu ma amul wax rek man na ko waxal man man man jéego personne yi waxal. Mhm, macha allah. parce que jàppoon na comme ni nga ko waxee am fulla mooy boobu am fulla mooy ña am xaral am fulla mooy doo baale doo jéggale. ma tooñ te ñu tooñ jigéen bi ñu tooñ ci a tooñ tooñ suñu borom kon sa micro bi désactivé ko inchallah mm-hmm. eh, te loolu yëpp ba nga ko mën a dara man fait du cœur bi nga xamante ne moom la ñuy dund mm-hmm. ñoo xamante ne ñu gaaw a mer gaaw a gis suñu bopp mm-hmm. bu ñu nit wax ñu foog ne dëgg dañoo ñàkk jaaxaan kon kon waruñoo wax dara te eh, ñun ñoo jiite yëf yi te loolu yëpp macha allah ñun dañ na carrément carrément bu buñ buñ neexee ñu ne dañ na. Mm-hmm. ndax demoon nañ ci lu ko waral mooy éducation boo xamante ni ci lay éduqué xamul boppam bay am lu mu mm-hmm. am ay manquement yu bëri yoo xamante ni nekkoon ñu ci loo xam ne ah ba âgé na ci. réseau bi taxaw. wala appel la. fekk nga xam ne gën na gën na xóot loolu. gën na xóot loolu nga xam ne gën bi a muñ a muñ ak li ñu mm-hmm. war a muñ. surtout li a surtout loolu. a muñ ak a solutionné a bàyyi a mm-hmm. la ko caaxaan. surtout loolu. bu ñu defee nga bombardé ko sa xol bi mu fixé dell nga jàkkaarloog li ngay muñ gis mhm. ay defet nga nekk en colère la ban mhm. gis koo xamante ne yow li ngay muñ moom muñu ko te moom mhm. kii fan lay jaar li ma nangu li ma nangu li ma nangu fekk nga dangaa càmmoon ak léegi xam bu nekk ay puzzle la nga xam bu nekk foo koy teg ci wàllu ci sa njaboot wàllu ci couple ba nekk wàllu ci njaboot bi wàllu ci entourage bi. Mhm. surtout. lii yëpp nag macha allah ñun bu jëli yëpp alquran ak sunna. Mhm. may wax sax suuf bi laajte ndax dafa war a wóor doog a ñëw bu la neexee dafa lu la neex nga ñëw. te am na ci mhm. nekk te biñ koy jéem dañoo ñëw. waaw kay looloo jar a <laughs> boo fa duggee daal. ñu ngi woon ci leneen mhm. wallaahi wallaahi lu lu la neex. Mhm. boo yegsee ñu tëggaat la ba nga bees <laughs> delloo la say mbokk. tey sama xale yi dañoo wax nekkul si maa ngi ñu ci wàññi leen toppatoo ndogu maa ngi. kontaan nañu en tout cas am na solo kontaan nañu vraiment kontaan nañu. yàlla yàlla yokk la ba nga yëg ko incha allah. amiin amiin ñu bokk ko xam nga li tax. Mhm. xam nga li tax. Mhm. kenn koo coaché kenn koo jàngal lu baax dana gëstu ci njabootam dana gëstu entourage am dana gëstu ñi ko ñi ñay daw di ñu ci moom. Mhm. dana leen dana leen waxal. macha allah kon affaire bi dafay law incha allah. macha allah kontaan nañu merci beaucoup. waa di jaajëfal jéeja bu baax a baax si woote bi waa di wax soxna yi mu ngi noonu yoo mm, ko déggaloo ëbbali mm. yaa ngi ñëw ëbbali coono la salaamaaleykum wa salaam wa rahmatullah faana nuyu nañ la dalal la di la yegg si di la ñu lay delloo ziyaar di ñi lay ziyaare ñu ngi nuyu maa umu bi fi génn léegi ak euh, Tata ja mm-hmm. di wax ne vraiment bis bi moom saay bu yegsee rek mbégte rek ngay àndal mbégte kase kase kase ngay àndal ndax euh, ànd ak nit début ba fin wax dëgg yàlla te durant toute la formation nga gis ni njariñ rek moo ci nekk kon bu clôture bi ñëwee mbégte rek ngay am mm-hmm. ndax euh, li tax itam lu metti metti li ñuy wax rek comme formation moom mu ngi ñëwaat yomb naa muñ un mois deux mois la ñuy toogaat euh, ñu tasewaat. Mhm. yal yàlla yàlla may ñu dund ak wér. ba ñu fekkeewaat ko si jàmm macha allah. mu nekk nag euh, formation boo xam ne pour man li may wax rek mooy. Mhm. depuis sama première formation ba ci formation tay bii. Mhm. mën naa ne euh, course saa bu formation ñëwee rek man je sais pas mais sentiment bi may am euh, ci jege gi may sentir ne moom nga may jege donte ne formation bi en ligne la mais je sens tellement euh, proximité bi dafay mel ni daal à chaque fois su ma xëyee rek dama am sama benn sama yaay la sentiment boobu laay am ba nga xam ne tey war naa mën a toog ak moom war naa mën a wax ak moom lépp war naa mën a def ak moom lépp. lépp lu moom musul xalaata wax ko nit tey moom mën naa koo wax. Mhm. te loolu defe naa du parce dañoo bëgg a wax du parce que dañoo ñeme wax mais ci ni ngi ñu formé ak ni nga teewee formation bi ak ni ngay doxalee ak xam-xam bi ak confiance bi. Mhm. moo ñu ko may. mu nekk formation boo xam ne itam durant ñu ciy nekk ci lañ rendre compte ne. Mm-hmm. wax dëgg yàlla suñu dund gi dañu naroon dund ba ba ba xëy dee ba pare ñu passé à l' mm-hmm. ñu passé à l' essentiel waaw dañu naroon dund ba xëy dem. Mm-hmm. fekk def nañ lépp ba mu des l' essentiel. ndax dañu nekk ci ñun àdduna boo xam ne wax dëgg yàlla soo ñëwee problème mu définition la ñuy am mooy. dañ lay xamal ne la rek comme sànq dégg naa ñu daan di ko wax juddu nga. fekk nga sa yaay sa papa nekk jullit donc yow jullit nga buñ la nga ne jullit laa. Mhm. mais à chaque fois saay boo yeewoo yow defoo benn pas pour dëggal sa njullite. mais mhm. au contraire chaque jour yaa ngi xëy di def loo xam ne dalay lay génnee sax ci euh, diine gi. Mhm. wala da lay génnee ci jullit gi te doo ko xam. mais da ngay jàpp ne daf lay gën a dugal. fekk yow yaa ngi ciy génn te yëgoo ko. parce que tu n'as pas compris exactement euh, affaire bi lan la. définition bu limité lañu ñu amoon mooy du suñ jàngee alxuraan jàng quelque affaire si julli mm-hmm. mën di taxaw di julli di woor rek dañuy jàpp nañ ñun moom vraiment matal nañ mm-hmm. donc le reste mooy saay bu ñu xëyee nañuy nekk ci suñuy bopp mm-hmm. di daw ci suñuy am-am di daw pour suñuy njaboot di am dara ainsi de suite ainsi de suite yaa dund pour àddina bu ngoonee ñu tëdd nelaw waaw dund pour àddina bu ngoonee ñu tëdd nelaw bu ñu xëyaatee nekkaat ci donc. Mhm. rythme boo xam ne la dafay monotone mais jamais la réflexion pour yow li ngay def nii est-ce que loolu nga waroon def. mais formation bi yàlla lu mu am jël. jàpp ni yàlla moom lu mu am rek jël desit desit bu ñu amee rek jox ko. yàlla moom dernière minute nga koy jox wàll. <laughs> wala boo jaaxlee. ba liggéey bi jeex. Uh-huh. bu xëyee suba ba ngoon ba liggéey bi jeex nag ba guddi boo ñëwee après nga xool boo sonnulee. Uh-huh. nga am loo ko jox boo sonnee nga tëdd nalaw. Uh-huh. moom daal restant yi nga koy jox soo xëyee daal xañ na julli suba gi. ba dem. li ci des yëpp ay toq-toq nga ko ciy jox mais ci leneen ngay nekk ba ngoon jot. mais ci formation bi. Euh, ci la ñuy comprendre ci 5D yi ñu def ci la ñu comprendre vraiment affaire bi du loolu am na beneen objectif. bu mhm. gën a nekk priorité que objectif yi ñu nekk. Mhm. te gis nañ ne objectif boobu plus que ñu ciy travailler plus que daf ñuy faciliter ñu atteindre yeneen objectif bu àdduna mhm. yi nga xam ne. dañ koy bëgg a atteindre. waaw ñu koy yombalal ba nga xam ne wax dëgg yàlla neex-neex gi ñuy sentir ah ci ci. ci suñu digganteeg suñu suñu suñu bopp. Mhm. ci suñu digganteeg suñu borom maanaam importance bi nga ko jox léegi. Mhm. valeur bi nga ko jox ak li may wax rek man yàgg naa di planifier. Mhm. mais wax dëgg yàlla ci say formation laa commencé nag di planifier sama digganteeg sama borom d'abord. door planifier sama bopp planifier sama business planifier samay doom planifier leneen mais bu njëkk ba wax dëgg yàlla activité bi rek business bi rek ngay planifier yow sa bopp sax danga koy fàtte. doo ko boole ci dara kon eh, li ñu jàng ak yow wax dëgg yàlla c'est l'essentiel ci li ñu waroon a dund ñu suñu àdduna xam aussi suñu rôle mooy lan ci étape bu ñu mënti toll muy rôlu yaay muy rôlu soxna jabar muy rôlu doom su diggante suñu waajur lépp rek ñu xam ci suñuy mission ba nga xam ne mhm. mission boobu dootul nekk fardeau ci ñun mais dafay nekk benn passion boo xam ne dañuy mhm. am envie di ko dund tey bu ñu demee ba njaboot da gis ne njaboot gi waaw njaboot gi day nekk ci ñun benn poids parce que. dañuy xalaat déjà naka lañ koy gérer ñu ngi xalaat nu ñuy def ba génn ci nu ñuy xalaat njaboot gi parfois ak tension yi xol yi di jóg saa su ne yi lu kenn xamul mais da dem ba finalement yow da am passion di nekk sa doom bi yàlla. boo dootoo bokk ci ñiy dàq seen doom pour am jàmm mais au eh, contraire boo mm. nekkee sa doom sax ci ngay ëpp jàmm nga gis ne sa relation kon bi ngay am ak say njaboot ni muy changer nga koy gis nii mm-hmm. am bi nga xam ne kon yaa am envie jouer sa loolu rek déjà ku fi kenn la ko fay kon bu weesoo sa borom ak sa say njaboot sa jëkkër defe naa amul leneen leneen loo ci dolli rek bonus la leneen loo ci dolli bonus la kon costu mën nañ ne ñun amuñu sa fay ci li nga xam ne moom nga ñu defal ñu xam suñu bopp ba nga xam ne tey costu dañ daan xëy si boppam ngoon di di di absorbé mm-hmm. di absorbé lu ñëw ñu jël lu ñëw ñu encaissé lii di la metti nga jël consommé li lay neex nga jël consommé finalement da ngay yenu yenu yenu yenu ba diis doo xam fooy yennee ko mm-hmm. mais fu mu nekk yow yaa ngi jàngal ñu am capacité de résilience boo xam ne coach du n'importe quoi la ñuy jël parce que dañu xàmmee xam ràññee te lépp lu ñëw sax lu ñu nit bëgg a sax même bu dee pour objectif am sax pour lu ñu am lu ñu métti la ñu ñooy am capacité boo xam ne. Mhm. dinañ mën a rejeter lépp loo xam ne c'est-à-dire duñ engrosser suñu xol bi sax muy métti suba ba moon jot. à chaque fois daal ñuy mën a protéger suñu bopp ci lépp di jéem a protéger suñu bopp ci lépp. lépp lu ñu mhm. dugg rek au moins dinañ ci demee xel. dinañ bañ a mécaniquement bi ñu doon mm. demee dañ koo bàyyi. Mm. lépp li ñuy dund aussi ñu jéem a comprendre xam lii lan la. Mm. lan moo tax ñu di ko def. pour jéem a rek doxal suñu mission sur terre balaa ñoo wuyu suñu borom fekk au moins ñu xam ne lii moo ñu fi indiwoon ñu nekk ci. Mm-hmm. macha allah te loolu yëpp ñi naan tënk na ko tataa jeeje ak maman Oumou aussi tënk nañ ko parce que coach comme li nga wax mm-hmm. rek nit ki loo ko munti jàngal te jàngaloo ko moom digganteem ak boroomam. set mm-hmm. sain. defe naa leneen loo ko jàngal tamit day yàquwaat parce que. Mhm. li ko fay du ko am. amul fondement bu dëgër donc base bi mhm. dang ñu ko jox fondement bi dang ñu ko jox ba mu dëgër ñu am ci nag benn euh, kii niveau boo xam ne fu nekk nii wax dëgg yàlla lu luñ ci dolli jël moo tax duñu fas yéene wuñu bàyyi 5D parce que dañu naan dañuy door door mhm. ndax liñ commencé di yëg nii wax dëgg yàlla lu war a yokk la lu ñu war di améliorer la lu ñu war di travailler la ba euh, fu ko yàlla yemale rek mu yem fa macha allah macha allah kon macha allah daal macha allah wax dëgg yàlla kontaan nañ torop di la ñaanal yàlla mu defal la tawféex amiin defal la lépp loo mhm. xam ne rek yaa ngi koy séntu ci formation bi na xam naa ne yéene giñ ci am mhm. mooy ñun ñii ñëpp ñu bénéficié wuñ ci ak képp koy soxna mhm. donc man ngi lay ñaanal objectif boobu nga dem ba atteindre ko ba femme yi macha allah bénéficié wu ci xam importance su 5D bi lan la xam njariñ ji lim la mën a indil ci sa bopp ci sa relation ci say activité ci sa diggante sa borom muy priorité lépp rek sa objectif mooy mu macha allah ba kenn ku ci ne gis ci sa bopp. tey itam man dama naan formation 3 mois formation 4 mois. Mhm. nit jox la ko yow formation bi di jeex woo mu jeex loolu amul fenn parce que formation moom foo ko commencé rek. buy mhm. waaj jeex yaa ngi naan ay kañ lay jeex damaa sonn mais ñun. formation bi day jeex ñuy découragé. kon nga xam ne li ñuy jox am na solo. kon nga xam ne li ñuy jox du lu ñu xamoon. c'est-à-dire que mën nañu jàng am tous les diplômes du monde mais bu ñu ñëwee ci yow dañuy mel ni suñu jàng. Mm-hmm. dañuy mel ni mosuñu jàng moo tax ma ne dañ naroon jàng lépp c'est l'essentiel. <laughs> macha allah rek ma ne ko mu nekk lu yéeme. Mm-hmm. lu sax macha allah am na solo. Mm-hmm. macha allah mais coach bu loolu jeexee moom sañse bi moom ah, ak euh, suñu. grande dame boobu ñu naan tuddee naa leen ko ah jël nañ ko macha allah tuddee naa leen ko en tout cas macha allah kontaan nañu. kontaan nañu yàlla. kon coach dañ lay bàyyi rek xam naa yaa maa ngi doon dégg nga naan maman Oumou. vidéo yi xaw ma la ñun ñi sax comprendre ñu loolu. vidéo maanaam pour ma umu mu génn. Ah, activer vidéo yi waaw vidéo euh, euh, yombul parce que du ñëpp ñoo am euh, vidéo yi naka te du ñëpp ñoo ko am. waaw dafa am ñu seen bés mën a activé wu am xam seen bës mënul activé wu. xaw ma nag mais macha allah mais comme dégg nañ baasam rek te gis nañ ñi laan. <laughs> en kontaan nañu bu baax a baax ji ah, dalal. dama doon ñëw rek pour témoigner un ci li ñu jot a xam ci suñu formation bi macha allah. Mm-hmm. li ñu jot a jàng ci sunu formation bi ñu ak li mu leen apporter personnellement fan la leen fekk ak fan la leen jëlee. waaw c'est ça qui est plus important. Mm-hmm. fi mu leen fekk ak fi mu leen indi. Mm-hmm. maa formation. Mm-hmm. Euh, defoon naa saison bu précédente bi. ñëwaat defaat donc liñ naan euh, mag bu naanee ndox mu tàng suukar saa baax. <laughs> Euh, boo defee benn yoon. gis ne am na njëriñ. Mm-hmm. am na njëriñ danga def naa ne pour nga duggaat si kenn du la bu baax mm-hmm. uteeg bu njëkk bi nga xam ne samay question laa yor rek samay tonu question di ko wàccee fu ne <laughs> ah, di poser question bi laajte ba xam c'est sûr ak c'est sécurisé ah, ndax fii mm-hmm. nii euh, luñ fi jàng ak yi kenn xamul mais yàlla def na ne bi ma si duggee euh, ñi naan encouragé ba ma dugg si euh, li ñuy wax rek fekk naa fa lu kawe sama njort li nga xam ne ni xalaatuma woon ne sax nit dinaa ko dinaa ko jéem a découvrir foofu mhm. ay découverte yu doy yu doy waar macha allah euh, ginnaaw ba bi ñu bi ñu nekkee ay nit yu dépendante comme ni ñu nekkee woon rek am dépendance affective bu méttee métti ci nit ci doomu aadama mhm, mhm. ñu mujj di jël sunu lépp tënk ko ci doomu aadama di ko topp yëkkatil baat bi tudd Aïcha di di ko jaamu. voilà di jaamu sunu di jaamu nit kooku. Mm-hmm. topp nit ki bëgg-bëggam rek moom moo ñu soxal moo ñu yitteel. Mm-hmm. talatuñu woon dara talatuñu woon toppatuñu d'ailleurs dañu sax xamutoon suñu bopp bopp bay bay toppatoo suñu bopp. Mm-hmm. ndax nit bala ngaa naan da ngay toppatoo sa bopp. da ngay xam sa bopp d'abord. xam say besoin xam say besoin te jéemuñu ci woon duut baaraam xamuñu xamuñu woon fu ñuy teg suñu tànk xamuñu fu ñuy teg suñu suñu loxo. ñu topp bëgg-bëgg doomu aadama ba négliger sax lu ñu war a jaamu yàlla li ñu war a jox suñu borom. Mm-hmm. mu doon li nga xam ne ni lu kéemaane lu doy waar loo lu ñuy réccu chaque jour. Mm-hmm. te tey formation bi mën nañu wax ne biñ ciy dugg développement personnel rek lañu dégg rek daal di ciy dugg mais xamuñu woon ne que dinañ ci amaale leneen loo xam ne ni dina nekk surprise suñu muy. muy muy eh, spiritualité bi. Mm-hmm. formation ci diine bi macha allah donte ne fekkoon nañu ñuy muuru. Mm-hmm. mais taxawuñu ci suñu diine ni mu waree woon. Mm-hmm. Euh, ñu réere woon ay mbir yu baree bare tey macha allah formation bi gën ñoo gindi gën ñoo delloo ci delloo si def ñu ay nit yu yu yuy bëgg seen diine yu am tawxit yuy yuy jàmb sunu borom ni mu waree te sellal ko te it euh, nga nekk koo xam ne li ngay def bu boobaa danga koy bëgg doo ko def ak kontaan. Mm-hmm. surtout loolu bi ngay julli da voilà julli bi ngay julli boo taxawee di julli amour bi ci am dal gi ciy am sa xel nekk si nga bàyyi ci sa xel ba nga xam ne nii yow leneen dootu la perturber. Mm-hmm. tey amur boobu yëpp macha allah ginnaaw yàlla ci fii ci Firdaws Coaching lañ ko jëlee. Mm-hmm. tey waxtu bi yow yàkkam taaloon sa gaas nga fay sa gaz nga arrêté li ngay def lépp dem julli mhm. taxaw am amour ci li ngay def uteeg ba nga daan xam ne ni danga daan këpp këppal yàkkamti nga pare pour lekk lan pour dem <laughs> dajale bagage bindee wala toggal yenn nit tegle dajale bagage yëpp tegee ko de côté pour toppatoo doomu tant que pare ba du ma julli wallaay waxatu ko mhm. <laughs> léeg-léeg daan dañ ko yàlla jéggal dañ doon ramasse euh, waxtu yépp toog takkusaan fekk la ci waañ timis fekk la ci waañ gee fekk fekk la ci waañ lépp mhm. nga bàyyi bay tëdd nga ne la xaaral nga ñëw sa mbax loo daal di euh, këpp këppal yépp sànni daal di teg mhm. ci suuf donc loolu yépp euh, tey dañ koy santee yàlla mhm. di wax dëgg yàlla ginnaaw yàlla comme li ñoom saana di wax souvent rek bu la yàlla bëggee dalay booleeg euh, dalay teg ci yoon te yoon boobu noonu firdaw su ko na tey bi ñu bi yàlla def na ñu gisante Fatima Zahra nga teg ñu ci sunu ci teg ñu ci yoonu tawxiid boobu macha allah. Mm-hmm. Euh, rawatina nag euh, li ñu xam tey sunu bopp ñu xam tey ki ñu doon. Mm-hmm. ñun tey découverte des personnalités sax nag tax na tey nga mën a xam non seulement sa bopp mais nga xam tamit ñi nga dëkkaale. Mm-hmm. xam say njaboot. jóge ci jugement ak critique ak jëw gu metti. voilà ñamay jëw surtout ça. naan damay jëw taxaw ma nu may def ba bàyyi jëw. question question nu ñuy def ba bàyyi jow <laughs> waa nu may def ba bàyyi jow wala nu ñuy def ba ba bàyyi jow uh-huh. te dëgg la tey ku uh-huh. topp Firdawsi coaching bii cinq d bi doo ko taal sax formation bi defe naa ne am nga jot la <laughs> topp examen yaa ngi jow yow jot la de tawloo ko sax nag da nga dul taal ci problème bu jàmbur yi sax doo yëg seen existence formation bu quatre mois bu intense bu intense du uh-huh. lundi au samedi rythme bu intense danga dul sax am jotam Mm-hmm. donc c'est rythme bu intense intense du lundi au samedi ngay def cours macha allah donc defe naa ne am tàng nga leneen lu dul. Mm-hmm. yow dimanche bi ngay am sax yaa ngi jàng yaa ngi rattrapé wu ndax tellement que affaire yi day day bari. Mm-hmm. yow kon foo jëlee fooy amee temps wu toog naan yaa ngi seetaan ay série wala yaa ngi seetaan ay yu kenn xamul yoo xam ne du la apporter dara. du la indil benn njëriñ du la jàngat ci lenn kon loolu. da ngay jaay di segg war nañ la ko mën a mooy jóg boobu ñu bàyyi. temps boobu nga xam ne dañ fiy rek dangay am taabula doy sëkk muy sa propre personne. Mhm. am lu la sant yàlla. xam nga ka boo découvrir sa bopp mu ngi mel ni nit buy buy buy dem doxaani découvrir euh, nit bu mu bëgg. c'est comme si que yow tu te découvres yow tu découvres ta propre personne et c'est c'est, c'est quelque chose de euh, waaw dafa nekk loo xam ni dafa lay impacter en benn surprise la benn raakale la boo xamante ni euh, vraiment dafa dafa neex ci xol dafa neex ci xol waaw te loolu je crois que effet boobu tey boo ci nekkee <laughs> dootoo talat yi di wax ci nit parce que yow am nga ay ay cycle yoo xam ne xam nga ni yëgoo ko woon sax bien vrai que yaa ngi ko doon doxee di nga gis tamit nit ki ci personnalité am na loo xam ni noonu la melan ah. soxlawul di ci sonn de midi à 14 di laajte la pourquoi du comment waaw. Mhm. surtout loolu. loolu moom dëgg la am na yoo xam ne nit mënu ko changer waaye boo décidé changer. Mhm. def naa ne ku décidé rek changer rek yàlla teg la ci ci yoonu Fatima Zahra def naa di changer parce que yi ñu fiy jàngat yëpp soo ko defee ci sa bopp rek. Mhm. dootoo amati benn xaar ma yàlla ak kenn. bopp la dara sax waaye sëy yi nga defar même bu nekkee ne sax. da ngay dund koo xam ne maari détail ku ko dégg daan ne ah cëm wala nangam. Mhm. mais yow li ngay defar maanaam. yow ni ngay mhm. xamee sa personnalité nga xam sa bopp. dina def ba tax yow di nga xam ni ngay gérer. nit ñi nga mhm. nekkal nit ki nga nekkal lu mu metti metti metti metti. yow loolu surtout souffrir. jigéen ñi di souffrir dootu la atteindre. ndax voilà. ndax li muy def bu fekkoon daf lay daf lay bëgg di atteindre yow won nga ko ne euh, gisuloo li muy defate yow bu fekkee ne yow mu ngi lay def te yow mënatu la laal fenn kon yow defe naa ne métti jeex na si yow. jeex na tàkk. jeex na da ngay mhm. la page nga dund sa dund. yooyu suuf si doo koy ci yàlla suñu borom lay jógee waaye doo jógee ci doomu aadama yi. formation. Mhm. Mm. wallaahi loolu kese. nga ngay nga nga toppatoo sa njaboot. Mhm. toppatoo sa bopp bëgg sa bopp comme ni ñu koy waxee xam nga tey. ci télé yi dañuy toog tey ku nekk naan euh, nit dangaa war a bëgg sa bopp dangaa war a bëgg sa bopp dangaa am confiance mais xamuñu définition bi exactement. yow sénégalais boo fi laaj koo gën a bëgg mu ne la sama yaay mbaa sama papa di <laughs> mbaa samay doom. gis nga du gis nga. <laughs> boobu. waaw <laughs> ah, moo ne incohérence la. te pourtant te pourtant boo leen waxee ñu sama bopp di man damaa am confiance en soi te fekk ne mm-hmm. xamuñu sax parce que ñoom. doomu aadama nag man nag damaa bëgg sama jëkkër. Mhm. Ah, naan ay ko gën a bëgg a naan sama jëkkër yamalewu ma kaa kenn te fekk ne. Mhm. yow même bu nekkee ne yow dangaa bëgg sa jëkkër li ngay bëgg d'abord moom mooy nga bëggoon sa bopp mooy mooy tax sa jëkkër si boppam. sa mhm. bëggee parce que bu fekkee ne yow bëggaguloo sa bopp taluloo sa bopp toppatoowuloo sa bopp jaam moom rek ngay jaamu. dëgg yow kon yow eh, bëgg bi nga xam ne ni moom lay xaar ci yow mënut mënut moom du ko mën a gis. Eh, eh, ci erreur rek ngay dox. moo tax daal euh, dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax macha allah en li ñu war a wax mhm. yépp moom mm, euh, a wax ndax surtout euh, confiance en soi boobu nga xam ne moo sonal jigéenu sénégalais yi manque de confiance en soi koo ci gis mu ngi naan awma confiance en soi te nit ki soo estimé wul sa bopp joxoo sa bopp valeur ngay xaar sa jëkkër bëgg la wala ngay xaar mu valoriser la bu ko defee ngay son di daw di commandé ay miettes yoo xam ne yow te yaa ngi yor sa magasin ba mu fees ak valeur ak ak amour nga war ko mën a dund mais malheureusement tu n'arrives pas parce que amoo benn outil bu la mën a permettre nga xam ni soxla woo commander de l'amour si qui que ce soit parce que tu en as déjà waaw amour bi nga am yow yaay partager de ku bëgg mu ñëw jël ku bëgg mu bàyyi mais yow doo dem di ko commander si kenn. Hmm. loolu moom loolu moom dëgg la macha allah moo tax daal dañuy gën a dool di sant yàlla rek euh, di ñaan vraiment formation bi gën a. réseau ba. réseau waaye gis nga. <laughs> musóor de sama sœur bi moo ma ko jëndoon xaw ma sa fu mu ko jëndee nag wax dëgg yàlla gars yi may laaj musóor yi di ma laaj musóor yi musóor de xaw ma fu mu jógee léegi laa ci am <laughs> merci beaucoup. <laughs> Mhm, xam naa ne euh, damay kontaan di indi sama témoignage. ma gars yi ku bëgg a inscrire demal ci ci ci ci euh, inbox Fatima nga contacter ko moom mooy gestionner inscription pour waa Sénégal. pour waa Europe yi mën ngeen dugg ci site internet waa Occident yi mun ngeen dugg site internet bi ngeen inscrire foofu directement waaw li ci des nag ku bëgg a inscrire nga nekk Sénégal mën nga contacter Zahra Séduction waaw su mooy suñu assistant waaw mooy gérer inscription yi nga xamante ni moo nekk Sénégal donc euh, mën ngeen inscrire ak moom donc. Euh, di ko jaajëfal bu baax a baax moom tamit ça fait des années muy ànd ak ñun waaw di gérer lépp li nga xamante ni mooy assistance bi jëm ci coaching bi ci euh, inscription formation yi vraiment mu nekk ku ku ñu taxaw loolu ci côté boobu donc ñu koy jaajëfal di ko présenter waa kër gi <laughs> bien vrai que moom rarement la yegg si yegg si déggoo gisoo demal Facebook Khadija demal Facebook. Euh, exil exil Fatima ñu ngi jéggal. bu nekkul woon liñ la xam moom à court xam mhm. naa tey moom ñu ngi woon leneen. Mhm. Mhm. voilà donc euh, li may njëkk wax rek mooy. Euh, le fait que coach jël formation yi jël contenu yi adapté ko ak alxuraan ak sunna man loolu li man li ma gën a gën a gën a neex ci formation yi. loolu mooy li ma ci gën a neex loolu ci la bokk. parce que tey jii boo demee dañu ma gëstu sa bopp. Mm-hmm. mën nga dem sa bopp weddi sax diine te doo mm-hmm. moo tax à mm-hmm. chaque fois développement personnel soo koy def amal ko xamante ne daf lay coach mën a ànd ak yow ngeen di dox pas à pas comme tey jii ñu ko euh, coach Fatima dañu ko defalee mais boo jëlee sa propre initiative naan da ngay jéem a gëstu sa bopp mën nga dem ba génn si gën a lislaam te doo ko doo ko doo ko sax bàyyi kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax pour ne pas tomber dans l'erreur beneen bi aussi mooy su dafay joxe ay formation intéressante lu ci mel ni développement personnel lu ci mel ni les couple ah éducation des enfants ma bàyyiwul dara même la vie sociétale yow da ngay xam tey ji naka ngay comporté woo par rapport ak certaines mhm. mu nekkoon loo xam ne ñun xamuñ ci woon lenn ñun daal situation bu ñu wax jooy ñu xamoon mhm. mais macha allah instant yi dañ koy taxaw ba nga xamante ne yéen ñi mhm. xoolal déranger dañ koy réglé à notre manière ba nga xamante ne tey dañ ciy laate coach te loolu c'est grâce à coach. nga xam ne bu njëkk ba jooy rek lañ daan def buñ déggantee ak moom mu ne non non non amul jooy defal nii defal nee. nga topp ci paa yi par benn benn par benn benn ba génn ci laa laate donc loolu lañ ko ciy jaajëfal baax a baax a baax. ba sax parfois yenn situation yi dañ koy réglé ba pare mais dangay kontaan. te que da ngay bugg sa dugg sa biir néeg nga di pàkkan yi <laughs> ba nga xam ne tey jii doon nekk di jooytu feebar. bilaay bilaay yaa sa jëm sa bopp. nekk yoo xamante ne am solo la képp ko a mhm. bokk ci formation yi am na bu ñu programme mu ngi ñëw xam naa après coach buy tëj dina ko dina ko dina ko annoncé. Mhm. su ko defee jigéen ñëpp bokk mën a xam naka lañuy ñuy éduquer tey jii am na ñoo xam ne. dañ dem ba décourager seen éducation doom. Mm-hmm. parce que la ñuy jàpp ne xale ne mm-hmm. boo ñëwee yow fi nga toll ak sa doom course mën na ba nga xam tey jii. dina mm-hmm. nekkaat koo xam ne yow yaakaaroo woon ne sa xale bi dina mën na di ko mën a dressé noonu. te doo dóor doo saaga. surtout loolu neex na de. l'éducation ñëw ci développement personnel. ñëw ci sa biir ménage même sa biir ménage noo koy gérer. tey jii sànq maa ngi dégg ñoom ñu naan ak ñeneen di wax. defaan dépendance affective nga xam ne ñun ñëpp daf ñoo daloon ñu. Mm-hmm. feebaru jeeg ji feebaru jeeg ji mooy daf loo jeeg ji de. billaay. billaay. nga xam ne dañuy attaché ba nga xam ne mm-hmm. ji sa waaye bu liggéey ji nga nekk kar kar bu dul. teelul ñëw nga nekk kat mooy fii mais gis nga mu ne nii luñ ci wax rek appal ne as tuut lan lañ leen. billaay billaay aussi muy la euh, les personnalités. Mhm. les nga xam ne ku ci nekk day xam boppam d'abord. surtout boo xamee sa bopp. doole la aussi commencé doole la doole la. <laughs> sa kër gi nga xam personnalité. ku la bëgg a démolir nga taxaw fi nga taxaw ndax yow xam nga ki nga doon. voilà mhm. xam sa personnalité loolu dafa nekk lu am am solo gis nga boo ko xamee après yow da nga am doole yow gis loo xam ne ñii ñu ngi mhm. da ngay gumba non avant 5D da ngay gumba doo gis dara. <laughs> doo gis te doo ko gis da ngay gumba mais bi ñu ñëwee ba coach leeral suñuy gët ba ñuy gis affaire yi non gis nga sa entourage seen bopp sax yow sa changement ñoom ñoo la ko njëkk a wax. da leen di jaaxal yaa ngi réagir avant ré réagir too ko ñoom a def semence <laughs> bi mais changement côté positif kese la nag. amul mm-hmm, positif la. ñoom ñu ngi xataraay bi kii fekk yow. maa ngi zen macha allah formation yi moom moo la ko may. lu am solo zen. aussi mooy daf lay may nga revisiter le passé. voilà nga revisiter nga revisiter le passé. juboo ak sa passé bëri yoo xamante ne bu ñuy def ci formation yi. Mhm. bu ñuy def ci formation yi am na cours yoo xam ne da lay permettre nga revisiter le passé. te boo ko mhm. revisiter par rapport à ton enfance par rapport avec ce que tu as par rapport à ce que tu as vécu avec tes parents daf lay permettre yow nga am benn kii boo xam ne benn. pardon ak l'acceptation le pardon inconditionnel l'acceptation surtout du boog sa passé nangu ko xam ne ci yow la bokk na dangay dégg ku naan coach nan laa def pour fàtte ay souffrance dal na ma mais mënuma fàtte fekk na le but c'est pas d'oublier ton histoire mais le but c'est de renouer avec ton passé waaw nga juboo ak sa passé nga accepté ko aussi xam ni moo la def tey ki nga doon dégg benn carte ko voilà c' est ça. Mm-hmm. nga mën a nag nga mën nag avancé nag. tey loolu bu jëlee conseiller avec son passé nga mën a avancé nag. Mm-hmm. tey jii na ñu bëri ñoo xam ne seen passé yàqu seen seen seen futur jàppoon nañ ne yàqu na. Mm-hmm. par rapport ak ce au passé. mais ñu réconcilier ak leur ñu vécu ko ñu vivre ko ak seen euh, euh, wala yaay wala keneen mais bu ñu revisité ba toog waxtaan ak moom rek. après day mel ni poids boo xam ne lañ la wàcceel. da ngay tuuti sans te loolu formation yi moo ñu ko may. te saison bu nekk nag ak loo xam ne moo ciy dooleeku. saison bu nekk ak loo xamante ne coach mu koy indi. te ah, dañ koy dañ koy mise à jour. Mhm. lépp lu am daf ñu doy. Mhm. Mhm. mu nekk koo xam ne na ci xam-xam lépp lu mu am daf ñu koy bu ko neexoon tey jii mu ne mu ne saison bii développement personnel kese laay joxe mu ñu jàll bu ko neexoon tey jii mu ne bi ci topp éducation mais yëpp lay boole. ba ci sa diine sax am nañ ko ñuy jàngal tawxiid ah kitaabul nikaax macha allah daal bu mënuñ wax lépp daal mm-hmm. waaw. ku ku bëgg a découvrir daal ñëwal bokk. te xam ne fii mm-hmm. moom 5D moom jàmm rek nga fi jëlee. Mm-hmm. comme comme son nom l'indique c'est dans ce coaching dundu tous les cinq dimension de notre vie. dañ koy dañ koy dañ euh, koy gis ci formation bi macha allah waaw tous les cinq dimensions. ndax suñu dund gi moom dafa am ay dimension yoo xam ne tey soo ko soo conscient wul rek yow da ngay nelaw en en fait maanaam tu es un être vivant ambulant da ngay vivre pour vivre mais xamoo sax sa sens su dund li gën a metti mooy yaa ngi dund yaa ngi liggéey yaa ngi def tout mais sa dund gi amul sens tu te sens vide tu n'es pas heureuse tu n'es pas épanouie mm-hmm. te loolu mooy dal ñu bëri waaw. Mm-hmm. am nga diine wala yaa nga tawxiit sax des fois ñu xam ne nañ tawxiit ah, ñu ngi ñu ngi xam nañ la croyance sain mais mënuñu savouré parce que c'est profond parce que sa ruux moo soxla ñu recadré waat ko yaraat ko xamal ko lan mooy mission sur terre lan moo ko fi indi ak nan lay gisee événement yi parce que kenn nekk ci ñun selon li nga dund noonu ngay gisee àddina waaw nga nangu xam ni sa dëgg sa dëgg la yaa ko moom sa dëgg du sama dëgg <laughs> sa dund du sama dund <laughs> da ngay libérer nit ñu libérer sa bopp may ñëpp jàmm mm-hmm. conflit yooyu dafay wàññeeku. dëgg la dëgg la ku ci nekk da koy nangu rek. la mu nekk ak na muy xalaatee. surtout nga nga nangul ko ko teewul yow di nga xam fi muy xalaatee. tey noppaliku avance. dafa mm-hmm. nekk di attaque di ko jël par benn benn di sonal sa bopp. Mm-hmm. nekk lu am solo te mënumaa mënumaa jeexal te indiwuma ñaar yi muy confiance en soi. ma dégg sànq euh, Aïcha wax ci. Mm-hmm. mu Séné Sénégal léegi sax dañ koo jël def ko terme boo xam ne ah, man damaa am confiance en soi fekk yow xamoo sax luy confiance en soi. dafa am solo ci nit. Mm-hmm. muy d'abord yow commencé par bopp yow. connaissance de soi. yow tey jii lépp looy def pour keneen sa bopp la war a njëkkee ba pare. Mm-hmm. sa bopp la war a njëkkee ba pare que ça soit tey jii parce que man je contre le fait parfois yow ngay jënd sax nekk célibataire di jënd dara damay daal fanaanaan jëkkër ji laay xaar damay damay jënd xaar jëkkër ji <laughs> non alors damay daal fanaanaan vraiment wala yow tu le mérites pas di ci daraat bu nooy non vraiment loolu la ñu gëm loo cuuraay bu neex ñu ne célibataire nga doo ko taal dencal ko jëkkër ji dara bu baax jëkkër ji sañse bu baax jëkkër ji mm. yow bu sa jëkkër tukkee sa ñu lu tax nga war a sañse parce que sa jëkkër newu li day waar. dëgg la dëgg la te muy dëgg. doo togg sax lu neex ndax sa jëkkër nekk fii ndax yow amoo droit lekk lu neex. dafa war a tàmbalee ba nga xam ne lépp lu neex. amoo droit lu neex amoo droit xeeñ lu neex amoo droit tëdd fu neex fu nooy déedéet. daa bàyyi ba jëkkër ñëw mel moom moom daal bu jëkkër ñëwul nag yow nooy def. ah kay lu jar a woote a ah, gis nga waaw ah, kay dañ lay préparé bu baax nga. bu mën mm-hmm. ndax boo sëyi jee. jàngal boo def fobee mm-hmm. lépp pour jëkkër ji daal. léegi nag kooku fooy jëlee confiance ci yan base ngay teg sa confiance yow. dëgg <laughs> ndax mënoo am confiance en soi soo amul estime de soi mënoo am estime de soi soo amul connaissance de soi ah, léegi nag kan moo la xew yaay kan lu jafe la am na loo xam sa bopp mais am na loo xam ne malheureusement il faut que une connaissance approfondie pour nga mën ko xam sa bopp waaw defal nañ leen énéagramme gratuite ci YouTube bi. Mhm. xaaral yegg si dafa mel ni sa micro bi dafay kii. maa Afy na woote ci whatsapp bi ku mënul yéeg na woote ci whatsapp bi whatsapp bi sa disponible pour vous donc ku mënul yéeg rek mën na kii waaw mën nga mën nga woote ci whatsapp bi donc numéro boobu ngeen def joxe seen euh, témoignage. Mhm. donc euh, waaleykum salaam wa rahmatulah Fatima connexion bàyyi na ko yéen seen xeetu connexion yii mu ngi may saf mu ngi may saf aaw wala ñaareel xam foofu rek. <laughs> waaw gis nga ñi fi daje nag ñi fi daje rek moom tim aaw ñoo fi daje de maa xam laa ay sa yàlla nekk fii. salaamaaleykum salaam wa rahmatulah. Euh, maa ngi leen nuyu ah, ngi lay nuyu di la fay. <laughs> maa allah ñu ngi lay fay. Mm-hmm. sa connexion moo yàqu woon da nga bëgg a continuer après ñu may ñu may Fatima mu conclure Yacine après nga àggale. waaw Fatima conclure waaw waaw. waaw yegg si yegg si. Mm-hmm. donc comme ni nga ko waxee mm-hmm. def pour nit. bul xaar kañ maanaam daal lépp resto ah dem plaramil dëgg sa bopp bopp ba pare balaa ngay bu may indi aussi moom xam ne coach macha allah ci formation yi développé na ko bu baax a baax a baax. bu jël bëggee tënk ko tëj ko def xol bi déedéet. fois da ngay bàyyi mu jàll. des fois ci loolu macha allah gën na ne ay outils yoo xam tey jii bëreetul loo xam. man tamit daf ñuy ko ñu koy fanaanoo nga xam ne bu njëkk ba day benn affaire rek benn mbir bu ndaw rek tey mën na laa metti. Mhm. man ñi def ma laa understand benn mbir bu tuuti mën na laa metti. Mhm. xoolal man ma maa koy fanaanoo rek. Mhm. moom lay fanaanoo ba bëgg rek ma nelaw. waaye léegi eh non macha allah daal noonu a di fa yàlla dañuy kontaan. dañ la ñaaral na yàlla rek yàlla dina yokku. amiin amiin affaire mu de ba nga xam ne tout va allah. defaloo a yeggali yàlla sant yàlla. macha allah nekkoon mhm. naa ak PDR. Mhm. mu jàppale ma ci jàppale ma ci jàppale ma ci ba ma ci génn fi mu ne nii maa ngi alhamdulilah maa ngi beneen ménage. Mhm. mais sant yàlla bu baax a baax a baax a baax. sant yàlla sant yàlla bu baax te lépp rek si grâce à elle. yàlla na yàlla baax ci yàlla may dugg nii sax li fekk ma di ko xool personnel et cetera et cetera loolu aussi moo ma ko jàngal ba nga xam ne sax sonaloon ma ko ci mën naa ko def defal sama bopp. Mm-hmm. donc sant yàlla bu baax a baax a baax ci loolu moom alhamdulilah léegi daal on a une vie vraiment apaisée. Mm-hmm. ba nga xam yu bëri métteetuñu yu bëri dañuy bàyyi ba pare aussi situation boo xam ne buñ ci nekkee dañ koy réglé ma neen ba mu leer naññ. Mm-hmm. ba nga xam ne ngay kontaan sa bopp di xalaat nag ko suuf ko ñaar macha allah mi ngi noonu. kama bàyyi yeneen ñi dugg. ñeneen suñu ak ñu ngi seen intervention par rapport ak euh, affaire yi. waaw kontaan nañu vraiment maaleykum salaam wa rahmatulah en tout cas am na solo. parce que comme ni mu ko waxee rek euh, cinq d moom investissement personnel la waaw ñu bari ñu ngi nekkoon ci mariage toxique comme ni mu ko waxee nekk ci mariage ak PN ragal cee génn wala ñu naan la boo ci génnee ku bàyyi ku lay sawlal di nga gis ku lay lal waaye de wallaay c'est pas vrai <laughs> y a des femmes yoo xam ne macha allah dañu ñëw ñu génnee leen ci PN ak succès yàlla boole leen ak ku gën PN ak succès parce que booy duggaat di nga xam ci li ngay dugg ndax pour tànn xam li ngay tànn lu mu doon. ndax tant que tu n'es pas guéri tu risques d'attirer que des PN waaw ba ci yéen ex femme PN yi yéen tamit ñëw leen inscrit ci formation bi ngeen waajal seen bopp donc mu ngi noonu kon Yacine ñu wax la nga yegg si <laughs> macha allah en tout cas am na solo mu ne j'ai visité le site vraiment c'est intéressant merci beaucoup Amina donc site bi di ngeen am information yi programme bi et tout am na aussi module d'inscription yi bu ngeen bëggee inscrire bu ngeen inscrire foofu en direct waaw donc su fekkente ni yaa ngi nekk en ligne sinon ñu jël keneen. السلام عليكم كوتش فاطمة وعليكم السلام ورحمة الله ñu ngi lay fay balaa may dama bëggoon seete dara waaye balaa loolu incha allah dama bëggoon wax ne ne man ma sonn bi si session bi 5D ak formation 5D bi waaw effectivement bi euh, mu si bokkee am naa lu bëri lim si jàng. Mhm. Euh, ak tamit euh, jàngal na ma lu bëri loo xamante ni si personnalité yi si caractère nit ñi ak tamit daf ma gën a changé si side boo xamante ni su may su may xamanteek nit ñi. Mhm. the jàngal nan lay defar nan lay. Euh, interacté ak nit ñi. Mhm. ak ku ak personnalité am. Mhm. Euh, loolu euh, ak leneen ak yeneen ak yeneen baax si groupe ak après loolu yëpp kontaan bu baax. sa mhm. son yaay. ak ni mu nekkee ak ñun si biir kër dundee ak ñun si biir ak ni meloon bu yàgg. ak léegi dafa dañ koo soppi jox leen. dañ koo soppi delloo leen ko. waaw. macha euh, euh, alhamdulilah euh, dafa soppeeku soppeeku bu. baax. Mhm. Mhm. ak. Euh, ñiy gën a tamit di am loo xam te ne am koo xam te ne dafay daf ñuy gën a toog ñu koy mu ñuy déglu. Mm-hmm. dañuy jàppale si ñi euh, si ñi ay euh, emotions ak lépp la. Mm-hmm. si si saa yëpp si diine surtout si diine tamit. Mm-hmm. am na yu bari yoo xamante